soo demee génne dénkaane ba da ngay seet rek ñu dénkaane ba war a génne seet itam na ko war a doon ni ñu war a tëddee mu ne bu dee li ma wax loolu nga xam ne daa wax ne su ma fi bàyyi te mën na joxeel jiw si mu fi xew ji kon kooku moom daa bëgg nga def ko ñetti xaaj mu tegu yoon kon ni ñuy génnee dénkaane yi moom mooy def ñetti xaaj mu tegu yoon ndax loolu ñu mën a génn ci la yow naan da ngay seet bu fekkee ne ña war a doon bu dénkaane bi génnee mën nañoo teg la fa def rek mu yem ca képp kon noppal na la loolu mooy mel ne moom bi nga faatoo ñaari doom yu góor dong la bàyyi wala ñaari mbokk yu góor dong yem ci moom képp bokk moom day bàyyi bàyyi bàyyi ba noppi mu dénkaane nga joxal ko sulus alalam kon xam nga boo doon miraas dong cër yëpp ñaar lay doon ku ne tegg benn bi mu dénkaane nga joxal ko sulus te xam nga boo defee ñetti xaaj joxe benn ba itam ñaari xaaj yi des ñemoo képp ñaari xaaj yi des kenn ku ne tegg benn waaw loolu kon da cee yem képp kon moom mën ngaa doyloo defaral yëpp ñetti xaaj rek dénkaane bi génn ci miraas mi génn ci ndax moom ñaar a ko war a doon dañ ko war a séddoo alal ci diglu te lim dénkaane nga joxel ko mooy ceeru alalam kon boo ko defee ñetti xaaj boo génnee benn bi joxel ko rek ñaari xaaj yi des ñaari xaaj yi des ña ko war a doon bu dee ñaari doom yu góor a ku ne teggi benn bu dee ñaari bokk lu ma waxoon te ñamoo ci moom daraja ku ne teggi benn loolu moom amul coow dana yomb noonu li ci des li ci des nag mu aajowoo lijjanti mooy bu fekkee ne boo génnee dénkaane ba joxe ño ñu war a seddoo miraas ma duñ mën a tegg rek saam ya mu yem ca mooy wax naa illaa ndéem du loolu fa wa fekk kon na nga dëppale bay na dil masalati diggante mile masala la diggante borom masala ma wal baax yi ak aji des ja ci gannaaw dénkaane ba wadrib te nga multiplie wif xaara waf xob ba fii jumla timaa ci mboolem la nga xam ne intaha àgg na il wasiyati ñeel dénkaane ba wa illaa ndeen deful tawaafuq fadrib fu kon nanga ko multiplie fii kaamiliha ci léppam law jàll doon tuddi jina loolu rek moo aajowoo saraa mooy bu fekkee ne léegi boo génnee xaajub dénkaane ba joxe ñay doon buñ mën a jël loola benn ma kon na ngay seet la des gannaaw dénkaane ba booy dénkaane bu ngi génnee ba noppi ak ni masala mi war a tëdd nga jàkkaarle leen kooku benn ñu def tabaa foq mbaa ñu def tabaa leen loolu nag saraa bi ñu lay bëgg a jox ñu ngi nekk ci saraa muxtasaru xalil ki koy jàng bu ko soxlaa te yor téere muxtasaru xalil mën na ko caa xool kon nag su fekkee ne gannaaw ba nga génnee dénkaane ba la des xool nga ko ak ñi nga xam ne ñoo war a doon seen diggante def tawaafuq moom la saraa bi di wax ci muxtasar xalil naa unzur hal baynahuma muwaafaqatun aw mubaayana fa in kaana mutawaafiqayni fadrib al wafqa ay al jusa allazi tawaafaqa bihi min al faridati fi maxraj alwasiyati fama xaraja bidarbi tasixu minhu alwasiyatu walfaridatu nee na bu fekkee dañoo def tawaafuq waaw kon léegi da ngay jël lañ def tawaafuq rek nga dóor ko ci lim ba nga xam ne moo war a génn dénkaane ba su boobaa bokk bokk dóor moo ne dóor mooy multipli mu génn rek dénkaane ba dina ci mën a génn masala ma muy miraas ba dina ci mën a génn su boobaa nag boo bëggee xam kenn ku nekk wàllam mu war a toll léegi moom lay wax naa wa man lahu shay'un min al maqaami axadahu madroban fi wasfi al faridati wa man lahu shay'un min al faridati axadahu madroban fi wasfi al baaqi maanaam koo xam ne amoon na dara ca dénkaane yo da ngay seet lam njëkk na am ca dénkaane ba nga multiplier ko ci wax xub masalam miraas mi koo xam ne amoon na dara ci masalam miraas ma nga multiplier ko ci wax xub la nga xam ne mooy des ci gannaaw bañ génnee dénkaane ba jox la ci misaal ka arbaxati awlaadin ay banina wa awsa bi fulus nee na mi ngi mel ne tey mu bàyyi woon ñeenti doom yu góor nga xam ne kon miraasam moom ñeenti xaaj bi quatre la waroon doon ko ne tegi benn ba noppi nag moom mu dénkaane joxeel mais sa àll bi moo fi bàyyi ko diw mbaa ñenn ceeru bi xam ne kon boo xoolee les trois la boo xoolee les quatre la moo tax mu ne fatasihu alfaridatu min arbaatin wal maqaamu salaasatun wa baaqi hisnaani muwaafiqaani li arbaa bi nisf dafa wax ne masala mi quatre la jëndkaay yu dénkaane yi trois la léegi nag boo defoon trois ba génne benn muy sulus deux mooy des xam nga deux quatre nag dañoo def tawaafuq moo tawaafuqoo ci nisf su boobaa fa tadribu al isnayni fi salaasa bi sitta su boobaa da ngay jël deux multiplier ko ci trois mu daal lay jox six waaw kon léegi da ngay jël maanaam wax ko masala mi masala mi moo nekk quatre wax ko ba nag mooy deux soo ko jëlee ni léegi nga multiplier ko ci trois mu daal lay jox six su boobaa falil Moussa lahu waahidun fi isnayn wala kulli wala kulli ibnin waahidun fi waahidin maanaam boo nee deux fa trois muy six dangay wax ne yow mi nga xam ne yaa amoon ca dénkaane ba benn muy sulus dama la koy multiplier ci wax xub masalam mooy damay jël benn multiplier ko ci deux muy un fa deux bu ko defee muy deux kon moom waroon am sulus ci dénkaane ba léegi deux lay am nga ne yéen ñi nga xam ne yéen war a doon ku seet seen masalama quatre la woon dama leen dama leen di multiplier quatre ci wax xul baax yi wax xul baax yi nag benn lay doon ndax ndegam wax ko bi dellu woon boo jëlee genn wàll wax ko ba kon benn lay doon kon na nga leen di waxal rek quatre fa un muy quatre ko defee na ñoom ñeent lañ kenn ku ne tegg benn kon daal ci misaal boo waxee deux fa trois ba mu nekk six boo seetloo ki war a jël ceeru alal bi muy sulus boo lay jël ñoom ñu waran doon doon ñeent doon ñu góor ñeent mooy des ku ne tegg benn loolu bokk seetloo mooy bu ñu defee tawaafuq wa illaa nag mooy wa in lam yatawaafaq al baaqi wal farida fadrib kaamilaha ay kaamilal faridati fi maxraji al wasiyati wa ma yaxruju min al darbi yastasixu al wasiyatu wal faridatu minhu nee na bu dul tawaafuq rek def tabaayun su fekkee dafay def tabaayun nga xam ne boo génnee dénkaan di joxe lay des ak masalam ñu war a doon dañuy def tabaayun kon neen da ngay jël lépp masalama multiplier ko ci ñi nga xam ne boo doon génne dénkaan yi noonu la war a toll waaw su boobaa nag ba li muy bari mooy xamee kenn ku nekk na wàllam toll woon moom lay wax naa wa man lahu shay'un min al wasiyati yudrab yudrabu lahu fil faridati wa man lahu shay'un fil faridati yudrabu lahu fil baaqi waaw nee na ngay wax ne ku amoon dara ci dénkaani ba dañ la koy multiplier ci ni masalam miraas mi ci boppam toll koo xam ne amoon nga dara ci masalam miraas ma dañ la koy multiplier ci li nga xam ne moo war a des ca dañ doon génne dénkaani ba la ca des loolu da nga koy sulee ci misaal bi ka salaasat minal banina wa awsa bis tulus ne na muy mel ne tey kooku bàyyi woon ñett doom ñu góor te dénkaani nag ma joxee sama sulusu alal léegi boo seetloo sulusu alal ji boo ci génnee benn muy dénkaane bi day def deux deux trois dañuy def tabaayun deux trois dañuy def tabaayun moo tax mu ne fatasihu al faridatu min salaasa ndegam ñett doom ñu góor lañ ñett saam lañu war a doon ku ne teg benn su ko defee nag fay itam génne moo tax mu ne wal maxraju salaasatun wa baaqi hisnaani mubayyinaani lil farida bu fekkee da nga war a joxe dénkaane bi da nga war a def trois kooku teggi benn ndax sulus la soxla moom mi am moom moom dénkaane bi kon deux mooy des deux nag bu defee tabaayu nag trois fatadribu salaasatan fii salaasatin bi tisan mooy da ngay jël lépp masala mi muy trois multiplier ko ci lépp ni ngay génnee dénkaane bi ba tey trois la muy trois fa trois muy neuf bu dee trois fa trois neuf nag nga daal di ne yow mi nga xam ne ca dénkaane ba ñett la woon nga war caa teggi benn waaw léegi benn boobee dama la koy multiplier ci trois ni masala mi toll woon nga waxal ko un fa trois mu trois ba tax mu naa falil Moussa lahu waaxidu min al maqaami fii salaasa bi salaasa borom dénkaane bi moom un la waroon am ci ñett ña ci boo ko doon jox absolus muy dénkaane bi boo ko multiplier ci boo ko multiplier ci trois un fa trois trois lay doon kon kooku trois lay doon loolu su ko defee nag li ci saraa bi teg dafa xaw xam naa duñ ko toppee dañ cee juum rek gis naa ni fii salaasatin bi shitta waaye say boo jàng rek walil banina salaasatun fasnayni bi shittatin maanaam doomi góor yi nga waxoon ba nga tëralee seen masala ñett ñoo ñett lañ yemoo war a doon ñetti saam su ko defee nag ñett yi nga nga multiplier leen ko ci wax xul ba maanaam ñett yi moom nga leen di multiplier ci deux ndax xam nga deux mooy li nga xam ne moo desoon gannaaw ba nga génnee dénkaani ba ndax dénkaani bi ab sulus la woon ba nga defee ñett génn ci benn kon ñaar ca desoon kon na nga leen di waxal trois fois deux bu ko defee muy six ndegam ñoom ñett lañ nag te seen wàll wi nekk juróom benn kon kenn ku nekk day am ñaar kon loolu mooy ni nga xam ne moom la ñuy génnee ab dénkaane bu taseeg miraas nga xam ne ni mu ko gàttale rek mooy bu fekkee ne mën ngaa génne dénkaane wu rek joxe la ca des ña war doom teggi ko mu yem ca ni ki misaal mu njëkk bi nga xam daa bàyyi ñaari doom yu góor rek ba noppi dénkaane ñu joxeel ko ab sulusam nga xam ne boo defee ñett boo génnee benn bi rek mu des ñaar te ñoom ñu war a miraas itam ñaar rek lañu di ñaari doom yu góor war a def ñaari saam kon kooku nopp leen da caaye moo képp mu tekki na nag bu fekkee ne génn nga dénkaane ba àggal te ña war a doon mënuñoo teggi saam yi ci des mu yem ca kon nee na benn mu def tawaafuq wala mu def tabaayun yaar yooyu nag kenn ku nekk leeral na la ko leeral na la bu defee tawaafuq ba misaal la ko leeral na la léegi bu defee tabaayun te mooy li mu ci wax léegi ba ci door a noppi wa in aw saa ndéem dénkaane na bi sudusin ci ab sudus wa subuhin ak ab subu fadrib na nga multipli li si tëtin ñeel juróom benn fii sa baxatin ci juróom ñaar waaye te nga wattu fii asli masalatiha ci cosaanul masalaam ma aw wifqiha wala wafqoom ba wa hakaza niki nii wa xiste nga xiyaas ala aw faaqiha ci seeni wafqu dafa wax ne kii dénkaane bu fekkee dafa dénkaane ñaari xaaj yoo xam ne dañoo def tabaayum mooy mënuñoo ànd iki mu ne kenn nañ ma ko joxal sama suddu su alal mooy bu ñu defee juróom benn nañ ko ci jox benn alal yëpp bu ñu ko defee juróom benn saam na ci jël benn kee moom mu ne nañ ma ko joxal ab subuhu ab juróom-ñaareel mooy sama alal yëpp bu ñu ko defee juróom-ñaari xaaj nañ ko ci jox benn kon nee na da ngay seet ne kon six ak sept dañoo def tabaayun dañoo def ak ñàkk mën ak ñàkk déggoo daal su boobaa da ngay jël kenn ki multiplier ci kenn ki xam ne kon da ngay wax maanaam six fois sept quarante deux boo ko safaane it benn lañ noonu lay mel su ko defee nag boobu doonee quarante deux nag maanaam su doonee quarante deux nga daal di génne subuhu bi génne sudus bi sudus bi moom juróom-ñaar lay doon subuhu bi mooy gën a néew doon juróom-benn su ko defee nag yooyu yaar soo ko boolee muy fukk ak ñett su ko defee nag fukk ak ñett bu génnee ci 42 kon day des ñaar fukk ak juróom-ñeent ñaar fukk ak juróom-ñeent yooyu nag soo ko seetee ci ñi war a doon tam yem ca képp ñi ki fekkan mu bàyyi moom mi dénkaane fekkan mu bàyyi ñaar fukki doom ak juróom-ñeent kon da cee yem képp ku ne war a am benn ba tey bu fekkan mu bàyyi fukki doom ak ñeent ñu góor ak benn bu jigéen it ba tey kon noonu lay doon yooyu yëpp moom kon gannaaw boo dénkee gannaaw boo génnee dénkaane bi ñaari dénkaane yi boo ko génnee muy terees kon bu dee nii ñu la waxee doom yi góor nekk fa te doon vingt-neuf kon day yem ak li fi des muy vingt-neuf ku ne tegg benn ba tey bu ñu doon quatorze ci ay doom yu góor ak benn doom bu jigéen ba tey noonu lay doon su fekkee ne nag boo génn dénkaane bi mooy subuhu ak sudus bi du tax ña ko war a doon man koo tegg yem ca kon moom itam benn mu def tawaafuq wala mu def tabaayun su fekkee dafa def tabaayun nag léegi mi ngi mel ne ñi war a doon nekk ñett doom yu góor te dénkaane bi moom ni nga waxoon léegi rek mu doon subu xoog suddus kon da nga jëlee kenn ci ñoom ñaar multiplier ci ka ca des ba mu jox la quarante deux soo génnee dénkaane bi muy terees ñett doom yu góor ñi duñ ko mën a seddoo ndax ñëw dañoo war a def ñetti saam kenn ku ne tegg benn kon nag ñu seetloo trois ak quarante dañoo def tabaayun waaw su boobaa nag léegi da ngay jël quarante deux multiplier ko ci trois trois mooy masalam ñu war a doon ni ñu war a doon quarante deux nag mooy ñi nga xam ne ci nga war a génnee dénkaane bi moo tax boo dee xool fii ci saraa bi nuy xool ci muxtasharu xalil mu naa wa in lam yanqasim xaleeha wa baayanaha ka salaasati banina fadrib al ithnayni wal arbaina fi asli al masalati talatatin moo di ñett mooy da ngay jël 42 multiplier ko ci 3 nga xam ne mooy ci saamul masala mi mooy ñi doon bu ñu dee doon ñett doom ñu góor lañ kon ñetti saam la war a doon taxruj mi'atun wa sittatun wa xishrona 42 boo ko multiplier 3 mooy boo ko defee ñetti yoon kon 126 lay doon su boobaa falil muusa lahu bi sudusi sabaxatun fi salaasatin bi ihda wa xishrina walil muusa lahu bi subuhi sittatun fi salaasatin bi samaniyata xachar waaw maanaam buñ ko multiplier ba mu soppi ko 126 ka nga xam ne moo war a am sudus bi ca dénkaane ba sept la waroon doon dañ koy multiplier sept ci ci lépp masala mi waaye dañ koy multiplier sept ci trois ko defee mu joxe 21 kon 21 mooy doon ab sub ab sudusam léegi ka nga xam ne moo war a am ab subuhu ab juróom-ñaareel ci dénkaane ba nga xam ne 6 la amoon ba tey da nga koy multiplier 6 ci 3 bu ko defee mu daal lay jox 18 bu ko defee nag mu des ñett doomi góor yi nga xam ne ñooy doon ñoom nag boo leen seddale li fi des ñett doom yu góor lañ kenn ku nekk day am 29 moo tax mën a wali kulli ibnin waahidun fi tishatin wa hishrina bi tishatin wa hishrina maanaam ñoom doomi góor yi kenn ku nekk la mu amoon ca masala miraas ma te ñett la woon ku ne am benn ku nekk benn boobee da nga koy multiplier ci vingt neuf vingt neuf yi nga xam ne mooy des gannaaw boo génnee ñaari dénkaane yi ci ngay multiplier kenn ku nekk lam amoon ca masalam miraas ma te loolu mooy benn doom bu góor bu ne nga waxal ko un fois vingt neuf mu jox la vingt neuf rek kon jàppal ci gàttal ne doomi góor yi ku ne vingt neuf ngay am su ko defee boo ko boolee ñaari dénkaane yi nga wax léegi nag xam ne kenn ki amoon na 21 kenn ki amoon na 18 su boobaa day daal yem rek ci li nga waxoon léegi muy 126 loolu mooy bu defee tabaayun bu fekkee dafa def tabaafuq nag kon na ngay jël 42 nga multiplier ko ci wafqu ba moo tax mu naa moom la misaale fii ka samaniyatin wa xamsiina ibnan fa tadribu al isnayni wal arbaxiina fi isnayni وفق الفريضة بأربعة وثمانين فمنها تصح الوصيتان والفريضة أنا من غير كارن ده بغن تي génné ñaari denkaani muy sudus ak subon fekk nag ña fa nekk di ay doomi góor te doon cinquante huit kon yooyu jamono day def tawaafuq yi jàpp ne cinquante huit nga xam ne noonu la masala mi war a toll ndax ñoom ay doomi góor lañ kenn ku ne benn saam la war a teggi buñ ko seetee moom masala day def tawaafuq su boobaa dañuy jël 42 multiplier ci 2 jàpp ne 2 mooy wafqub masala bi li tax ñu jàpp 2 rek nag ñu wafqub masala mi noonu daa gën a gàtt moo tax ndax boo seetloo masala mi muy cinquante huit mën naa soppi ko ay ñaar ñaar moo tax nag kon ñu def rek deux muy muy waf ko bi kon daal quarante deux moom la ñu multiplier ci deux su ko defee mu daal lay jox quatre vingt quatre tax mën naa bi arbaxatin wa samaanina bu la joxee quatre vingt quatre nag léegi da nga mën a génne ñaari dénkaane yi muy subu xoog sudus ba noppi mën cee génne waale masala mi mooy ñi war a doon tegg itam yam ca su boobaa falil muusa lahu bi sudusi sabhatun fi snayni wafqil masalati maanaam su boobaa ki nga xam ne moo war a am sudus mu dib dénkaane léegi xam nga ne quarante deux yi sept la ci war a am da nga koy multiplier sept nag ci deux bi nga xam ne mooy wafqu masala bi koy waxal sept fa deux mi quatorze walil Moussa lahu bi subuhi sittatun fihima ki nga xam ne moo war a am subuh moom juróom-benn la war a am ci boo defoon quarante deux juróom-benn mooy subuh bi da ngay jël nag juróom-benn muy six multiplier ko ci deux ndax deux mooy waf nee nga mooy waf xub masala mi su boobaa boo ko waxalee six fa deux muy douze su ko defee nag boo boolee kon kenn kon li mu am ci ñaari dénkaane yi kee am quatorze kee am douze kon day doon vingt six soo génnee vingt six nag ci quatre vingt quatre di ko séddale cinquante huit ci ay doom yu góor yoo xam ne gis nga ne ñoo yemoo kenn ku ne war a teggi benn kon da ca yemoo rek kenn ku ne benn ngay am muy wali kulib nin waahidun fi waahidin wafxil baaqi maanaam daal bi lépp doonee quatre vingt quatre soo ci génnee vingt six muy quatorze yi borom sudus bi moom ak douze yi borom subuh bi moom kon léegi doomi góor yi ñoom cinquante cinquante huit lañ ci ab lim bu kenn ku ne tegee benn da ci yem képp quatre vingt quatre yi daal di jeex loolu kon noonu la wa mahada an nag li xaaxidatun ab reegal maanaam ab takk-takk lam tan xarim boobu xëttut boobu du xëtt fii ku fii kulli xismatin ci bépp séddale abat boobu bañ na antan xasima mu séddaloo mooy fantur xoolal li ak tari sihaami jëm ci gën jaabari cër ya wadrib ta nga multipli la ñeel ko fii maa ci la nga xam ne tasixu dana wéree min hu ci moom tusib kon nga jam juga fa man lexoo koo xam ne ñeel na ko cheyun dara yeecit hu mu fekk ko xat duriba di multiplier ko fii asli masalatihi ci cosaanul masalaama kama turiba ni ki sàkkoof ko nee na mi ngi lay jox benn takk-takk boo xam ne du dañ mukk ci boo bëggee wéral masala yi nga xam ne moo xëtt ba borom cër ya mënuñoo tekki cër ya nee na saa yoo jëlee cër yi nga xam ne ñoo ëpp ca masala ma daal di koy multiplier cosaanul masala ma lu mu la jox rek nee na boo ko seetloo boo ko seetlee mu daal di jëpp bu ko defee lu waay amoon rek da nga koy multiplier ci cosaanul masala ma loolu nag wax na ko noonu rek waaye taxul moo misaal ko ñu jàngal la saraa bi nga dégg ni ko borom saraa bi saraa moom it te misaalu ko ndax dañuy waxu naa ka qaidatun laa tanqarimu fi tasxiixi almasaili kulliha wa hiya annaka tanzuru aktara sihaami min kulli masalatin wa tadribuhu fi asli almasalati fa min dhalika yaxruju sawaabu fa man lahu shay'un yajidhu madroban fi asli masalatihi kama huwa almatlubu wa hakada faslun li ab dog la fil iqraari ci saxal ga wal inkaari ak weddi ga wa in aqarra ndeem saxal na waarisun aju donn bi day nin ci bor kasaaniki ni bi waarisin ci aju donn bi tuuni may ni ci lul fen axasa kon mu jàpp maa la nga xam ne naq saxoo wàññi na ko ko al iqraaru saxal ga haasa lii qayadahoo tënki na ko bisi ci moom al axbaaru foréer fa amal jëfal lahoo ñel ko faridatal inkaari masalam weddi ga wa amal te nga jëf la xoo ñeel ko faridatal iqdaari masalam saxal ga wantur te nga seet li ma ñeel li nga xam ne sam ma nekk na foofee minal awfaaqi ci ay wafxu wa saxiix te nga wéral an nazara seet ba bittifaaxin ci ak dëppoo waqsim te nga seddale xalal inkaari ci weddi ga wal iqdaari ak saxal ga wal toxtiyi te nga jox ko maa la nga xam ne zaada dolliku na fil inkaari ci weddi ga maanaam bu fekkee ñi war a doon da ci am koo xam ne daa tuddaali keneen ne diw de ci noonu la mel ne moom mi fi jóge am na ñaari doom yow am na ñaari doom yu góor yu wér yoo xam ne moom xam nañ ko kenn ci ñaari doom yi ne diw itam de suñ bàyyi ko jur mu doom bu góor mu ne diw itam de suñ bàyyi ko jur kenn ka ne déedéet suñ bàyyi juru ko te nga xam ne moom amut lu koy saxal kon dañuy wax ki nga xam ne moom nee na suñ bàyyi jurul kee ñun ñaar rek la jur dañ koy wax ne ko yow ci niñ koy séddalee sawal dara du ci wàññi ko dañuy seet rek mel ne yaa kenn dong yéen séddoo alal ji nga am ci genn wàll kee nga xam ne nag nee na kee suñ doomi bàyyi la kon boo ko toppee li mu wax ñetti nit lañ ñetti góor lañ su boobaa kon moom léegi ku topp ni ñu waxee ñu ko doon séddale kenn ku nekk ab sulus lay am maanaam ñetti xaaj lay doon kenn ku ne teggi benn kon dañ koy wax ne ko léegi buñ defee alal ji ñetti xaaj kee nga xam ne moom nanguwul keneen bokk ci muy nee na maag diw dong la muy nun ñaar moom wàllam moom genn wàll lay am dara du wàññi moom ci ci wàllam waaye moom mi nga xam ne moo bëgg a tuddaale keneen te gisuñu lu ko saxal dañ koy jox ab sulus ci alal ji ndax ni mu waxee ku ko topp sulus la ci war a am la nga xam ne nag moo war a des nag ñu jox ko kook ya mu tudd ne ci noonu la ba tey noo bokk bàyyi moom la saraa bi di waxal naa moom téere bi ñu war ci boppam di ko jàng saraal na ko boppam saraa bi mën nga cee jàpp ci misaal moomu mooy yaani an al waarisa isa aqarra bi daynin aw waarisin wa ankara ahadul warasati ma aqarra bihi athani fallasi aqarra bihi yuxadu min nasibihi ما نقصه الإقرار فالذي أقر به يؤخذ من نسيبه ما نقصه الإقرار ومن أنكر فله حظه كاملا مثال ذلك أن تعمل فريضة الإقرار وفريضة الإنكار وتنظر الأوفاق وتصحح النظر وتقسم على الإنكار والإقرار فالمقر واحد والمنكر واحد كن فهذه من اثنين حل الإنكار فهذه من اثنين حل الإنكار وحل الإقرار مم ثلاثة كن فاضرب الاثنين في الثلاثة أو الثلاثة في اثنين فمنها تصح فتصير المسألة شتى ñaan loolu boo ko dee liggéey da ngay tëral masala mi nga xam ne boolewuñ ci kenn nu war a tëdde ak masala mi nga xam ne boo ci dee boole kenn ci bëgg a wañëwaale nu mu war a tëdde mu yaari masala ne bu fekkoon ni ñu la wax la ñaar dong la kon menn masala bi moom ñaari xaaj lay doon mooy danga def alal ji ñaari xaaj ndax ñaari góor lañ ku ne teggi benn masalam ñaareel bi nag mooy boo bëggee bu ñu bëggee dugalaale ki kenn ki wax nag kon su boobaa ñett lay doon kenn ku ne teggi benn boo jàkkaaree ñaari li mi nag deux ak trois dañoo def tabaayun su boobaa nga jël deux multiplié ci trois ba jël trois multiplié ci deux deux fois trois six ba trois fois deux six bu doonee six nag ki nga xam ne moom daa waxal ne man daal kii dong laa bokkal bàyyi keneen bokk ci dañ koy wax ne ko yow sawal dara du ci wàññi ko day mel ni bu doon yàgg moom dong rek su boobaa juróom benn ñett la ci jël mu daal doon ni sif ki nga xam ne nag moom moo bëgg moo bëgg tuddaale keneen ne diw itam suñu doon bàyyi la noo bokk bàyyi ñu wax ne ko yow nag kon boo waxutoon loolu ñett ngay am muy nisif waaye léegi ndegam bëgg ngaa tuddaale keneen nag dañuy seet ni nga waxee ko ko toppe woon yow kon sulus alal ngay am kon yow ñaar yi rek ngay teggi mooy kon ñaar lañ koy jox bu ko defee benn bay des juróom benn yi nag ñu jox ko kookee nga xam ne moom la bëgg a tuddaale wax ni moom ba tey suñu doom bàyyi la kon benn boobu lañ koy jox wa tax mën naa fa xalal inkaari li kulli waahidin min al isnayni salaasa wa xalal iqraari li kullin min al salaasati isnaani kon fa lillazi ankara salaasatun maqaamu nisfi min sitta wa lil muqirri isnaani maqaamu sulusi su ko defee nag li ci topp nag saraa bi dafa xaw a mel ne nga ko doon tàppe dañ koy muul dañ caa jum waaye mën nga koo leerale nii rek mooy walil muqarri lahoo walil muqarri lahoo ma baqiya wa huwa waahidun ay sulusun nisfi mooy sulusun nisfi moom mi nga xam ne moom lañ moom la kenn ki bëgg a boolewaale te kenn ki moom gàntu ni bokku ci waaw kookee nag benn bi des moom lañ koy jox benn boobu nag boo ko dee seet mooy sulu sub nisif bi ndax xam nga juróom benn ab nisifam mooy ñett ñett na kon ab sulusam mooy benn wa kazalika man aqarra bi day nit ñu ba tey bu fekkoon ne kenn daa saxal bor ni nun kat amee suñ baay amee loon na diw nangam te amul ci seere amul lu ko mën a saxal kenn ki ni déedéet amee lu ko amee lu ko woon kon su boobaa moom mi ne amee lu ko woon moom wàllam dara du ci manqué day mel ni rek lépp alal jaa ngi fi ki nga xam ne moom moo bëgg a saxal bor boobu nag wàllam dana manqué ci kaw ñu seet ku génne bor ba noppi nag ci ni mu waxee la waram war a toll ku ci génne bor bi la la war a des lu toll noonu lay am ci wàll waaye du am wàllu mat faslun li ab dog la fii mawaanihil irsi ci way tere donn yi nga xam ne mooy tee kenn donn ci li bëgg a dugg mawaanixul irsi way tere doon nga sabiyun moo di ab xale moo di gone